jërëjëf mbokk yi maa ngi nuyu bu baax di leen ziara yéen waa Leral TV maa leen nuyu bu baax di leen ziara di am mbégte lool nag ci ñëw gi ngeen ñëw ci barab bu sell bi di barabu Serigne Touba barab boo xamante it barabu ndigal la ñun ndigal mooy ci ndax fii ñu toog tey ji bu ñu naan ngaabu fii tax ñu naan ngaabu barab bii ñu toog moo tax ñu naan ngaabu ndax fii la Sëñ Tuubaa ñëwoon fanaan fi def li mu fi def doo fee bàyyi ko jàll njaareem lii nag mag mi ma ko nettali dañ koy wax alaaj Ibra Tëli moom sa mag ñi la bokkoon euh, nee na Serigne Saliou moo ko wax Serigne Saliou nee na sëriñ bi dafay julli timis dafay julli ak gee ak fajar. doog fee bàyyi koo jàll njaareem loolu nag bi ñu koy bi koy xayma day toll ci atum 1912 ci lañ koy xayma mooy atum baaxaan ja at moom la Sëriñ Tuubaa jaar julli fi def fi li mu fi def bi mu fi bi mu fi bi mu fi jaaree def na fi ay keemtaan ndax mm, wax nañ ne bind na fi ay xasida wax nañ ne it bi mu fi nekkee ba waxtu woo mu war a jàll jot bi mu bëggee jàll suuf si daa wàqante ak moom xamal ko ne maanaam jaamu yàlla gi mu fi jaamu yàlla kenn mësu ko fee jaamu yàlla bu sañoon mu des fi maanaam bu sañoon sëñ bi daf yi des sëriñ bi daa def jàmm loolu nag bokk na ci ngëneel yi barab bi nga xamante ni kéemaan gi nga xam ne Sëriñ Tuubaa def na ko fii ñu nag ñun ñi santuloo sunu ñëw ngaa bu it jëmmi barab bii saytu saytu saytu barab bi ak maanaam warmaal gi moo tax ñun ñu ñëw fii waaye fii ñu ñi sant Juuf ñoo ko dëkkee ñoo ko moom seen suuf la ñoom waaye nag Sëriñ def gi mu fi def li mu fi def ngir ñu sàmmal ko ko war wagaral ko ko ba nit ñu mën koo jariñoo moo tax ñu ñu santuloo mu indi suñu maam di ñu wax suñu am satuloo moom la fi ngir mu saytul ko barab bi maanaam ba nit ñi mën koo jariñoo ndax jamono jooja barab bi lënd mën a lëndëm goo xamante ni doyoon na waar tund bi sax laay wax mën a lëndëm goo xamante ni doyoon na waar ak jaamu yàlla yi defe woon na lool rafle woon na fi jaamu yàlla rafle woon na fi lool waaye nag bi nga xamante ni Sëñ Tuubaa jaar na fi ba fi def yebal suñu maam ji ñuy wax suñu am satuloo mu ñëw saytul ko barab bi si la nag lu si la nag lislaam tàmbali ubbi ko fii waaye fii nag lislaam la rafle rafle woon na fi moom njëkk Sëñ Tuubaa di fi ñëw lislaam rafle woon na fi loolu sax ndax fii dañoo wax ne fii si kanam tuuti boo doxee si kanam fa la ñuy wax laa laa maanaam dëkk la woon boo xamante ni ku fa masaa falu ku masaa falu buur foofu ngay foofu ngay fare woo mooy laa da dégg suñu saako di ko wax sa sa sa wayoo naan raagul laaga maanaam raagul laa maanaam dañ fa daan daje ñoom yi di def seen yëf yi seen yëf ceddo yoo xamante ni danañ fa daan def une semaine yoo xamante ni loolu rek lañ fa daan def maanaam def seen yëf yi seen yëf yi ceddo rek waaye nag suñ tubaa ñëwee fi nag julli fi def fi li fi def si la si la dem ba njaareem nag yabal suñu am sëtloo ngir mu ñëw seetul ko barab bi ba li mu fi def ngir maanaam mu mën a mu mën a leeral tund wi ba maanaam xeetu foow yeeg caaxaan yooyu yëpp mën fee jóge loolu rek bokk na si si tënk rek si eh, njariñul barab bi kon bu ñu ba tund bi yëpp maanaam wala ñu mën a gis ngaabu di ko jàpp dëkk boo xamante ni day man ne lislaam saama ko sañcoon loolu jëmmi sëñ Tuubaa ji ak def gi fi def julli gi mu fi julli ak maanaam barkeeloo ko jëmam ju tedd ju barkeel jooju nga xamante ne fu jaar dafay am jeexit loolu bokk na si eh, sabab bi maanaam suñ mënee eh, suñ ko mënee gàttal maanaam loolu bokk na sabab bi waaye daal suñuy wax jëmmi dëgg-dëgg ngaabu daal fii moo tax ñu ne ngaabu fii mooy la suñ Tuubaa julli def fi li fi def képp koo gisaat képp koo xamante ni ñëwaat nga fi ginnaaw bi mooy ñu sant loog ñu sant Mbàkke ñëpp barab bi moo tax si ñu andi leen ci tënk su ma ko dee gàttal ndax euh, wax nañ suñu tubaab bi mu fiy ñëw fekk na fi góor bu ñuy wax ma Kura Juuf mu ngi penk bi moom lañ denc ci penk bi Masamba Juuf moom wax na ne moo dalal sëñ bi maanaam euh, may ko ndox mu jàpp yeesalaat am njàppam Masamba Kura Juuf moom wax na ne keroog bi mu wàccee liggéey ñu yebalaat ndaw si njaareem sëñ bi di ko yëgal dane ma dane dane de Masamba Kura Juuf moom moo ma duyaloon sama set léegi ñu ne ko waaw mu daal ne malaaka yërmande yi ñëw nañ malaaka yërmande yi ñëw nañ biig di ma ko tàgge si bu ngeen àggee na ngeen ma ko defee sama penku jullikaay bi moo tax ñu def ko bii si penku bi moo nekk nii si penku bi boo génnee jumaa ji si penku bi noonu foofu ko denc loolu ndigal Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa moo waaye nag fii maanaam garabu sànqaay moo fi nekkoon fi la Sëñ Tuubaa fanaan dafa ñu koy def moo tax ñu naan gaabu sànqaay loolu moo sabab turu ngaabu sànqaay bi loolu mooy sabab ndax fii daa am ngaabu sànqaay am ngaabu murit mooy fële sa karaw sa kanam fa sëñ Modou Lo dëkkee foofu la ñuy wax Ngaabu Murid fële mooy raana bi fa mu jëm moom la ñuy wax Daaru Lo waaye téyul lépp si biir Ngaabu waaye nag waa Daaru Lo gële te sanc Daaru Lo moom la suñ Tuubaa yebal si woon fii bi mu ñëwee ba egg si fii nag bi la bi mu wàccee mag ñi nag bi ñu waxtaanee ñoom seen biir ñu xam ne ab sëriñ ak ab cedd mënuñoo dëkk te ab sëriñ fu mu fu mu dëkk daa war di bay di jàngale te booba mbir yu doy na waar doy waar goo xamante ni léegi tax moo taxoon nag ñoom ñu waxtaan seen biir nag kon ñoom nañ ko may a yor daaraam yor fa ay di bay mu yebal ko fële foofu mooy Daaru Ndoy mooy ñun ñi ñu di wax foofu laa dëkk waaye nag comme que barab bi dañoo sàmm ak warmaal barab bi moo tax ñu andi ñu fi sëriñ ma indee man ma yor daara ji yoraale barab bi di ko saytu loolu moo sabab ñun ñu sant loo sunu ñëw fii ngaaw waaye nag ñi sant Juuf ñoo dëkk dëkk bi ñoom bi seen dëkk ñoo ko moom ñoom la ko seen maam sañ joon waaye nag suñ Tuubaa lu mu defar lu ne day ko xosay dafay lu mu defar lu ne maanaam dafay yóbbu koo xamante ni moo ko saytul lool ñun ñu sant loolu loolu mooy sama sabab suñu ñëw ngaagu loolu mooy sabab garab gi nag moom xam naa ne euh, dafa dafa dafa dafa kii dafa dafa daan woon dafa daan woon léegi nag ginaar bi mu daanoon nag si lañ doog a si la si ndigal Serigne Saliou nag si lañ doog a rëdd jumaa ji jumaa ji si ndigal Serigne Saliou dañ ko moom moo fa yebal ku ñu wax simis fa bu sa yàlla na ko yàlla yërëm wàcc na bi nga semaine bi moom suñu am moom suñu baaxee bu sa moom suñ mbàkki bu sa semaine bi la wàcc liggéey yàlla na ko yàlla yërëm moom la suñu saali yabaloon moo ñëwoon euh, rëdd jumaa ji waaw waaye nag garab gi nag moom ay jeexitamul ci ba tey lii si la bokk waaw loolu loolu loolu loolu lii ci la bokk jëmmi xob yi sax am naa ko sama biir téléphone bi xam naa ne incha allah dinaa leen ko jox ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen xool ko jëmmi xob yi am na sama biir téléphone bi dinaa leen ko jox ngeen ngeen gis tupp tupp daay yi ma leen wax yàggul dara ne wax nañ ne màggal Tuubaa gi nii bu mosaa xew ñoom dañ daan ñëw jël ci xob yi taxaw fi si tël bi di ko weccee ko nga xam ne dañ si gis tukki tukki daay sëriñ waaw tukki tukki daay sëriñ bi da si da si da am loolu nag bokk na si kéemaan Sëriñ Tuubaa gi am na ñu wax ne euh, génn na si mbubb mi def si barab bi ngir lépp maanaam defale ko suuf si ndax suñu borom daa wax ne lépp lu lépp lu mën a doon rek day sàbbal day sàbbal suñu borom lépp lu mën doon day sàbbal suñu borom kon suñ ne suuf si da doon waxanteeg sëriñ bi loolu kuy kuy borom basira wala ku xam dara danga xam ne kon loolu lu wér wax ji wér la ndax lépp loo mën a gis rek mën a doon rek day saabal suñu borom léegi nag ñun ñi nga xamante ne euh, suñu suñu suñu kii agul foofu maanaam dañoo yem si lekk ak naan rek ñun yooyu mën a xam waaye borom basira ñoom danañ xam danañ xam loolu bu baax a baax waaw loolu bokk na si euh, li fi sëñ Tuubaa def xam naa pour ñu wax lépp lépp sax dana xaw a jafe waaye daal loolu mën na mën na si ñoo wax ne loolu bokk na si li fi sëñ Tuubaa def fii si barab bi tey barab la barab boo xamante ni bu faju ajo la barab la boo xamante ni barab faju aajo la bari waa ne nag lu nit di tudd ngaabu tudd ngaabu di jàmbat diw diw diw ma sa ngaabu du jëmi diw mooma du du jëmi kenn barab bii la la war a diw moomee di faj aajo yi wala ñu dégg diw diw diw sa ngaabu diw sa ngaabu diw sa du kenn la fa Sëñ def si barab bi fii la ko def waaw bari waa na joo xamante ni nit a nga nit a nga jóge fu sore sori dem si diw mu fajal ko sa ngaabu déedéet diw mooma de la sëñ Tuubaa si barab bi fii la ko def damaa wax ne barab bii rek da barab bi dong dong dong laax ku ku amoon aaju ju man a doon nga ñëw dugg si barab bi fas ko fi génnaa dem si yoon incha allah aaju jooju lay faj waaw ndax ndax li faj aaju yi fii la ko sëñ def ko si jëmm yi si barab bi la ko def waaw si barab bii la ko def jëmm yi nag dañ koy barkeeloo dañ koy comme sama classe bi a ñëw juñ a jox nga ñëw wax ni nangam ak nangam ñu la du maanaam barke bay faj aajo jooju si barab bii la ko sëñ Tuubaa def fii nag moo tax ñu naan ngaabu ñu naan ngaabu nag fii mooy dëgg-dëgg ngaabu ndax fii la suñu Tuubaa fanaan def fi li fiy def Serigne Saliou daa daan wax ne fudul fudul Tuubaa ngaabu moo gënal fudul Tuubaa ngaabu moo gënal loolu kàddu kàddu Serigne Saliou wax na ko ba tàyyi wax na ko ba tàyyi fudul Tuubaa ngaabu moo gënal daan ne ngaabu day pekkub loolu nag moo ko waxaloon boppam waaye Serigne Saliou daa ñëw feddaliwaat loola daan ne ngaabu pekkub Serigne la boo seetloo Cheikh Béthio lu tax këram gi mu bind fi pekk bi maanaam kàddu boobu du ko dégg si si Serigne Saliou du ko dégg fekk nag moo doon mooy mooy loo xamante ni mag ñi dafa am seen néeg yi comme su mu mag ñi seen néeg yi dañ daa am ruq boo xamante ni dañ fa daan denc bagage yi gën a fonk lañ ko daan denc bagage yi gën a fonk lañ fa daan denc moo tax ñu daan wax pekk pekk nag boo ko dëgg maanaam ba da ngay néeg sa bagage yi nga gën a fonk fa ngay denc du ku nekk nga fa yebal du ku nekk nga fa yebal koo fonk dëgg-dëgg wóolu ko dëgg-dëgg moom nga fa yebal fa ngay denc say bagage yi nga gën a fonk moo tax mu ne kon dañoo bokk ne kon moo tax ñu ne ngaabu fekkub sëñ Tuubaa la maanaam dencub sëñ Tuubaa la maanaam moo taxoon sëñ Saali moom tam mu ñëw wut fi kër sëñ Murtala ñëw wut fi kër Alaaji Baara ñëw wut fi kër ñoom ñëpp kenn ko si ne sang nekk di doon sëñ Tuubaa da nga fay fi kër ñoom ñëpp seen kër a ngi fi sëñ Saali këram a ngi fi sëñ Murtala këram a ngi fi sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Alaaji Baara këram a ngi fi sëñ Seexam kër a ngi fi ñoom ñëpp seen kër ba sëñ Seexam sëñ Saali mi këram li ko waral nag mooy dencub sëñ Tuubaa bi nekk fii fii dencub sëñ Tuubaa moo fi njëriñu garab gi moom garab gi moom garab barkeelu la ndax suñ tubaat dara am ñunut léppam barkeel léppam dafa barkeel soo gisee ab garab ne néewaa kër koo dugg si dëkk bi kër goo fi dugg te garab gi amu ndax ñoom xam nañ xam nañ njariñoo bu ndax xam nañ ne fépp fu mu nekk kaaraange gu mat sëkk la kaaraange gu mat sëkk la maanaam kër gu mu nekk moom kër kooku du lakk ay xeetu lakk yi moom suñ borom lañ si musal maanaam jëmi jëmi jëmi jëmi jëmi jëmi kii bi jëmi bant bi fi ne boo duggee kër gi kër gi yëpp laa kër goo fi dugg rek da gis ne baa bant bi ñoom am nañ waaw ndax kenn ku si da nga siy jël loo xam ne da nga koy barkeel ndax suñu tubaab dara am ninu léppam barkeel rawatina nag lu mu laal waaw di suñu laa doon wax ne maanaam li muy def si doomu aadama bañ topp bañ topp bu ko defoon sa garab ñu dëkk ñu dëkk fa wër te duñ fa jug maanaam suñu tubaab def fi si dëkk bi yàlla daa dogal sabab bi si garab gi la ko jaare waaw si si garab gi la ko jaare ndax dafa dafa dafa jël daa ji yu càq ko si garab gi kon barke bi faw day jaar si garab bi doog a mën a rogalaat ba ba si suuf si am na ñu wax nit dafa génn si si yëreem dafa génn ay yëreem gas ko ci ron garab bi suuf ko waaye li gën a wér mooy daaji ndax daaji saa boo xoolee euh, euh, tupp da daaji da nga ko gis si si xob yi doon kéemaan gi nag mooy xob yi boo xëccee boo boo boo ko daggee doo ko du am waaye nag xob bu wadd bu wadd moom boo faree da ngay gis tupp tuppi daay sëriñ bi loolu moo doon kéemaan bi foofu yi dañ fi dañ fi ziar si dañ fi ziar si bu baax a baax nit ñi dañ fiy ñëw même fii sax am bis boo xamante dañ koy màggal bis set at mu jot dañ koy màggal maanaam maanaam dañuy màggal bis bi Sëñ Tuubaa jullee bi bi financé woon dañ koy màggal maanaam it bis bi nga xamante ni moom la yebal suñu bu ñëwoon nga bis boobu dañ koy màggal chaque koy màggal ñun ñu santuloo mooy bis mooy nga xamante ni moom la ko Sëñ Tuubaa yebaloon ne mu ñëw ngaabu saytul ko barab bi maanaam bis boobu ñun ñu santuloo dañ koy màggal mooy sunu mooy mooy màggal ngaabu bi bis bi nga xamante ni moom la Sëriñ Tuubaa fanaan si woon ba tey dañ koy màggal waaw ñaar yëpp dañ koy màggal si at si at mi bisu ne bisu ne bisu boobu nga xam ne woon fii kilifa yu mag ñooy ñëw si julli gi kilifa yu mag ñooy ñëw jiite si julli gi sëriñ sëriñ Amadu Buso ñi nga xamante ni mooy xalif Sëriñ Mbàkke Buso yàlla na fi yàlla moo jiite si julli boobu moom mooy jógee géree ñëw jiite si julli gi waaw ndax ñoom ñu koy màggal ñi nga xamante ñooy woote bis boobu ñoom ñooy seeni sëriñ at mu jot Sëriñ Amadu Buso mooy ñëw jiite si suñ Moustapha Bousso mii ma la doon wax léegi yàlla ko yàlla dolli yërmande nga xamante si semaine bi la la wàcc liggéey moom moo daan ñëw moo ko daan jut jiite si waaye bu ñu demee ba yeeg yooyu ak wéradi bi ko si suñu amar moom nga xam ne mooy xalifa bi léegi mooy ñëw bokk du julli si si màggal boobu waaye nag teewul moom barab bi fu ne nit dafay jóge ñëw di siyaare si barab ndax bu ñu buñ buñ ndax tur ngaabu moom ku ne dégg na ko waaye nag suñuy wax ngaabu nag barab bi tax ñu naan ngaabu ndax fii la suñu tuwaa def fii la waa def fii la suñu tuwaa def lañuy def ñu sant Ndoye it barab bee tax ñu ñëw fi waaw kay jërë ngeen jëf yéen tam ñeen ñi soq seen i seen i seen i jéego ñëw ci barab bu sell bi ngir di gën a yaatu liggéeyu sëriñ bi yéen waa Leral TV ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm tey lu dul loolu yi ñu ngi ñu ngi leen di suivre bu baax ci TNT bi numéro 33 euh, bi ñu ngi leen ci bàyyi xel bu baax ñu ngi leen ñu ngi leen di suivre bu baax a baax waaw dañu leen dañuy topp télé bu baax a baax gis nañ documentaire yu am solo yi ngeen di def waaw di di di dem ci dëkk àll yeeg yi ngeen yi ngeen di doxal yëpp daal programme bi ñu ngi koy siifal bu baax ñu ngi koy bàyyi xel baax baax ñoom tam leen gën a ñaanal baax suñu borom bi leen te yéen ji ngeen am ci liggéey bi suñu borom bi dafa leen ci du seen jot waaw ngeen am ci du ko seen jot tam di leen siyaar bu baax ak seen bokk taalibe yooyu nga xamante ne dañoo wàccoon liggéey sa euh, jamono ja président Macky Sall doon def tournée yooyu ñoom tam ñooñu ñu ngi leen di ñaanal ñoom suñu borom bi yërëm leen te jéggal leen te at leen sérma leen sada